te bi durant vraiment ces deux jours yëpp mu ngi jublu ci la visite du président de la République n'est-ce pas a Mbour 4 Mbour 4 ouais. Mbour 4 mm. à Thiès mm-hmm. n'est-ce pas avec tout son n'est-ce pas l'arsenal ñëpp mm. ñëw les gouverneurs les mm. préfets tout le monde ñëw ñu visiter le site c'est vrai c'est vrai baax na baax na ñu évaluer Euh, boo leen fàttalikoo Abdoulaye Wade bi muy soog a ñëw le président Abdoulaye Wade mm-hmm. que j'aime bien mu nekk góor gu am am am caractère. Mm-hmm. n'est-ce pas bi mu ñëwee dafa jëkk def les états lieux. des des des des du foncier. Mm-hmm. n'est-ce ba ñëpp taxaw ku nekk sax xam nga xam nga nekk sur la défensive mais finalement nu mujjee. furaas. le président bi nga xam ne moo fi nekkoon te Macky bi bu ñëwee vraiment dëgëral na. ay commission yoo xam ne ni ñoo yor affaire foncé participer naa si rencontre yu bëri yoo xam ne ni noonu lay demee mais finalement mais c'est c'est c'est du pareil au même ñii nag ñëw nañu aussi il faut ñu voilà cheral <laughs> facture bi ñëw xool le foncier fu mu toll parce que foncier aussi nañu jàpp ne ça rapporte beaucoup d'argent seen intention xaw ma ko mais foncier moom day moom moo gën a gaaw ci indi xaalis te nag ñi muy indil xaalis mooy les mêmes personne les mêmes VIP maanaam ñëpp ñi nga xam ne nii. ñoo yëngatu si loolu soit ils sont. Hmm. près de de de de l'État am fa doole ñu ñu jox leen ñi ñu fi jox ñëpp ñi ñu fi jox ay 40 hectares ñu fi jox ay 50 hectares dañu jege nguur gi. ñu jox hmm. leen donc maanaam je je crois que la la solution n'est pas là la solution pour Sénégalais li ñu soxla ci ci le président de la République nekkul ci ay foncier foncier benn. benn benn pourcentage bu ndaw ñoo ko yor li ñu soxla mooy le le train de vie n'est-ce pas. Hmm. des des des, des sénégalais. mu na ñu wàññi nañu wàññi njëg gi loolu loolu la ñëbbi di xaar. nañu hmm. wàññi ceeb bi wàññi diwlin bi wàññi ah. courant bi. n'est-ce pas. nee nañ ñu ngi xool fan nañu ñu war a jaar wàññi courant bi n'est-ce <laughs> wàññi location bi. surtout yokk payoor yi. loolu loolu lañ loolu lañu priorité boobu la ñuy xaar si ñoom. mais mhm. waxuñu nga ñëw xëy suba un jour de premier mai un jour de fête nga mobiliser sa équipe yëpp dem sur le terrain di wax ne kii moo war a am wala kii moo dul am loolu man jàpp naa ne du ressort ressort mooy li urgent ñi nga xam ne moom la ñëpp soxla mooy ñu wàññi dund gi le le pouvoir d'achat mu wàññeeku. ba pare ñu yokk payoor yi parce que aussi nit ñi sonn nañu. mais président Macky Sall dafa ñu revaloriser salaire gars yi respecté wuñ ko ñi loolu la ñu yàkkamti ñu revaloriser salaire yi nga xam ne vraiment nit ñi ils vivent dans la misère. Hmm. amuñu bara mënuñu lekk mënuñu naan parce que dañuy fay location salaire boo xam ne boo ci fay location mais doo dese dara. ngay dem di di taxale. ba pare ñu ngi exiger nit ñi pour ñu ñëw à l'heure di di di pointer xam non lu nekk ngi fi te loolu li koy saafara mooy ñu jël en compte n'est-ce pas salaire liggéeykat yi nga xam ne. dañu dañu néew doole surtout surtout dans le secteur des collectivités territoriales vraiment ñëpp xam nañ ne ñun ñu ngi li ñuy dund moom c'est l'enfer